في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر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 keroog nag équipe bu Xidma 28 àndoon nag yeneen mbokki taalibe yu dëkk Thiès ñu gën cee ràññi sunu mag sunu jëwriñ sëriñ Mame Balla Niang Thiès nag ku ko xam-xam ne mooy capitale région de Thiès dëkk bu mag la bu nekk ci sowu Sénégal sooreeg Dakar capital du Sénégal juróom-ñaar fukki kilomètres waaye sooreeg Touba capitale du mouridisme téeméeri kilomètres ak ñaar fukk juróom dëkk bi nekk ci selebe yoon nag nekk diggante Dakar Mbour Touba ak Tivaouane ñëpp xamee ko nag gaar ak chemin de fer ak saxaar danañ ko wooyee capitale du rail Thiès capitale du rail waaye danañ ko wooyee benn dëkk ñaari gaar wax nañ dëgg dëkk bi am na ñaari gaar gaar bu njëkk ba mooy gaar bi nga xam ne fi la saxaar gi doon jóge Dakar jëm Ndar doon yabe nga xam ne ñu ngi ko amal ci 1885 ci jamonoy tubaab bi gaar bi ci tegu mooy Thiès xaay mooy gaar bi nga xam ne fa la saxaar gi noonu yemee Thiès jëm xaay ca Mali fa la doon yabe ñu amal ko ci 1923 moom it ci jamonoy tubaab bi loolu moo tax ñu koy wax benn dëkk ñaari gaar bañ demee ci dëkk ba nag dem nañ fa ci ñaari barab bi ci njëkk mooy kër sëñ Ahmad Ñaaño Sow góor gu baax la gu nekkoon Thiès gu wax ne sëriñ bi jaar na ci këram bañ demee waxtaan naag waxtaan nañoo ko ay sëtam bañ fa jógee jaar nañ ci bërëb bi sëñ bi julli woon siyaare ko ba jógee ci kër googu dem nañ ca gaar ba eh, wax nañ ne am na barab bu fa sëriñ bi julli dem nañ ba gis barab ba ba siyaare ko alhamdulilah bi nga xamee ne nag eh, dajale nañ xibaar yi nga xam ne am nañ ko ci waxtaan yooyu am ko jële ko ci sëtu suñ Ahmad ñaañu saw yooyu jële ko ca waa gaar ba muy kilifa yaak hôpital bi fa nekk boole ko yeneen xibaar yu ñu amoon ak xibaar yoo xam ne jëlee nañ ko ci màgg murid yi nga xam ne ñoo nekk xombal ku mel ne sëñ Modou Mbay Joor ak sëñ Thierno Diouf Lambaye bi nga xam ne wax nañ ne ñaareelu yoon bi sëriñ bi ñëw Cees jaar na xombal julli fa biñ ko booleeg li nga xam ne yër nañ ko ci wàllu histoire coloniale maanaam taarixu jamono yi fi tubaab yi nekk buñ boolee xibaar yooyu yëpp liñ ci mën a tënk mooy lii ci liñ xam sëriñ bi ñëw na cees ñaari yoon wala jaar na fa ñaari yoon bu njëkk bi mooy bi nga xamee ne arte nañ ko biirum dar ba war ko yóbbu Gabon bis ba mu fa xëyee war a ñëw dugg ci bato Dakar bis boobu di 19 septembre jeudi 19 septembre 1895 yemoo ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru gàmmu ci atum 1313 ci Hijriya wax nañ ne ba mu gontee ndaxte jëm dakaar ci saxaar bi saxaar gi ñëwee ba cees taxaw na fa sëñ bi wàcc saxaar gi dem julli ñaar rakka ca penkub gaar ba jullik naafi la wax nañ ne ci yoon wooyu Cheikh Ibra Fall àndoon na ci ñaareelu ñëw bi mooy bi nga xamee ni ñëw na kër sëñ Amath Niang Sow boobu ñu demoon bi mu fay ne nañ dafa waroon na dajeek ab gouverneur général en tout kilifa yu tubaab foofu ci Thiès ci gaar ba ak ci gouvernance loolu 7 mars 1923 la woon yemook fukki fan ak juróom-ñeent ci Chaban 1341 ci Hijriya ñaari xew-xew yi euh, sore lu tolloog ñaar fukki at ak juróom-ñett parce que bii 1895 la bii 1923. waaw ñaareelu ñëw bi nga xam ne sëñ bi ñëw na ko cees nag muy 7 mars 1923 boobu dafa am ñaari wax dafa am ñu wax ne ab gouverneur AOF bu newoon senegal ba liggéeyam jeex fi ñu war ko affecté feneen. moo sàkkoon ci sëriñ bi bala muy dem ñu tase mu taseeg ak moom gaaru Thiès mu mën koo tàggu mën a saafoon teg moom waaw bu fekkee ne loolu la gouverneur boobu Merlin lay doon ndax Merlin moo nekkoon gouverneur AOF 1919 ba 1923 ci 1923 nag ca mars ga lañ ko affecté Indochine Merlin nag ñëpp xam nañ ko xam na sëriñ bi sëriñ bi xam na ko ndax moom moo xaatimoon rapport ba nga xam ne moom lañ jàng keroog ci bureau Ndar ba waral ñu yóbbu sëriñ bi ci ci ci Gabon yóbbu yóbbu ba waral ñu yóbbu sëriñ bi Gabon. boobu 1895 Merlin moo nekkoon directeur des affaires politiques de l'AOF nekkoon Ndar kon rapport ba nga xam ne liir nañ ko ci bureau Ndar moo ko bindoon. moom Merlin moom it bi mu nekkee intérimaire gouverneur Roum moo jëloon décision yóbbu sëriñ bi Mauritanie ci 1903 ba 1895 la bi 1903. waaw bi nga xamee ni ñëw nañ nag ba 1919 le 15 septembre 1919 ci lañ ko nommé gouverneur général AOF moom Merlin mu nekk fi 1919 ba 1923 mars 1923 Merlin moom it xam ngeen ne moo invité woon sëriñ bi Dakar en 1921 le 4 mars 1921 moom moo invité woon sëriñ bi ca ca ca ca Ndakaaru euh, ngir bëgg ko tuubal tuuma yeeg lépp luñ ko teg ci nga xam ne lépp xam nañ ne mujj gi xam nañ ñu teg keroog bi sëñ bii dem wax nañ ne mu ngi àndoon ak sëñ Massamba sëñ Balla Coro maam Cheikh Anta ak sëñ Modou Moustapha kooku kon mooy Merlin. kon beneen wax bi mooy gouverneur bu bees bu ñu affecté ndar mu gouverneur AOF mu war a jël service wàcc ci booru Ndakaaru bi sàkku ci sëriñ bi mu mën a taseeg moom ci ci ci gaaru Thiès waxtaan ak moom xamal ko ne moom lañ fi indi bu fekkee ne boobu wax la. kon gouverneur Jules Carr lay doon sos parce que Jules Carr moo nekk gouverneur AOF te loolu it nag mag yi xombali ñoom lañ jàpp mag yi xombali dañoo jàpp ne ki sëriñ bi doon dajal Thiès ak gouverneur bu ñu fi indi la bu bees mu wàcc pooru Dakar war a dem Ndar jaar Thiès bëgg a saafonteeg sëriñ bi waaw kon bu fekkee ne loolu la kon Jules Carr lay doon waaye bu fekkee ne dañoo xoolaat histoire nekkuk tubaab yi fii ci Sénégal ci AOF da ngay gis ne kayit gi nga xam ne moo dogal Jules Carde war a ñëw doon gouverneur régional AOF war a nekk Ndar kayit googu fukki fan ak juróom-ñett 18 mars lañ ko bind kon mën nañoo jàpp ne ba le 18 mars Jules Carde ñëwul woon ñëwul woon Sénégal kon Merlin moo fi nekkoon kon le 7 mars mbis mi nga xam ne sëriñ baa ngi dem Thiès di fa daje kilifa tubaab googu Merlin moo nekkoon ba tey gouverneur du Sénégal waaye lu mu ci mënti doon daal ak kilifa tubaab la bu sàkkoon ci sëriñ bi mu tase ak moom ci gaaru Thiès saafonte ak moom wax ko yitteem kon bu ko defee sëriñ bi jóge keroog 7 mars njaareem dugg ci saxaar gi bi mu ñëwee nag ba xombal saxaar gi taxaw fi mu wàcc dox tuuti ba fii nga xam ne mooy jullikaayam bi ci xombal ci wetu tali bi mu julli fa ñaar rakka wax nañ ne boobu jullikaay boobu ay ay sëg la woon ay armeel la woon mu julli fa ñaar rakka daal di yéegaat ci saxaar bi mu ñëwee ba cees nag góor gi Ahmad Ñaañ Sow moo ko dalal fa njëkk a jaar sëriñ Ahmad Ñaañ Sow moomu nag kilifa euh, diine la gu amoon jàmm ak ñëpp am kook tubaab yi waaye am kook mbokk yi kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo nekkoon ci ci tund ci région boobu yëpp ku mel ne sëriñ Baru Njëgeen mi nga xam ne mooy bàyyi Ahmadou Njëgeen Alaaji Ahmadou Njëgeen waaye ku mel El Hadj Malick si mi nga xam ne wax nañ ne ñëw na fa ay yoon ci kër googu gannaaw sëriñ bi it sëñ Massamba ak Cheikh Ibra Fall ak ñoom ñëpp ñëw nañ ci kër ga sëriñ bi yónni leen wala ñu dox seen yite bopp kon ku amoon xalaax ak ñëpp la doon ku baax moo tax sëriñ bi daloon ci kër ga. kër sëñ Ahmad Ñaaña Sow nag ñu ngi jàkkaarloog commissariat central police nekk villa numéro 32 avenue Coumba Ndoffène Diouf avenue boobu sax léegi Ahmad Ñaaña Sow lañ ko tuddee. sëñ Ahmad Ñaŋ Sow nag jamono yooyu mu ngi nekkoon ak soxnaam suñu wax Adja Fatou Ñaŋ Birane doon jigéen ju yiw ju baax ñu mënoon gan ba tax na seen kër googu ñu bari ab dal lañ ko defoon mbokk yeeg jàmbur yi ku mës ñëw cees Thiès ci amum foo dëkk foofu ngay jaar am soob la nga doore wuy feneen sëriñ bi nag bi mu ñëwee ci kër gi julli na ci ëtt ba ëttub kër ga julli na ci ëttub kër ga nee na ñu wax ne it sëñ Axmad ñaañu Sow mu indil ko kenn ci doomam yi mu man koo ñaanal sëñ Axmad ñaañu daal di koy indil doomam ju ñu wax Lamine Sow boobu gone la sëriñ bi teg ko ci tànkam ñaan tefli ci bopp bi wax nañ ne sëñ Lamine Sow moomoon mujj na ne kilifa gu mag mu dem na ba nekk directeur de cabinet euh, président Abdou Diouf ku bëri woon barkele it dëkkoon Dakar sëñ Axmad ñaañu nag amoon na ak soxna soosu doom ñu wax Pape Demba Sow Pape Demba Sow wax nañ ne boor yi moo nekkoon chef du bureau du domaine de Thiès ci jamonoy commandant Lamy moom dem ba Sow moom moo daggal Serigne Saliou toolam yi suuf si nga xam ne moo nekk ci suufas Ngot daaray Ngot yi moo ko daggal en 1934. léegi bi ñu demee ba nga xam ne nag Serigne bi war naa dem giseeg euh, kilifa tubaab googu ca gouvernance walla ca gaar ba euh, sëñ Ahmad Ñaañu Sow moo ko yóbbu ci watiram ba ca gaar ba ñu jógee fa dem ca gouvernance wala boog li nga xamoon moo doon kër tubaab bi tase faak kilifa kilifa tubaab googu ba mu ca jógee nag dafa demaat ca gaar ba jël fasaar dellu njaareem euh, barab bi nga xam ne sëriñ bi julli woon na fa ci kër Ahmad Ñaañ Sow sëñ Ahmad ci boppam moo ko moo ci njëkkoon a def ab miir di fa def def ko jullikaayam gannaaw gi nag la ko mbokki taalibe yi Cees defar ba mu mel nii mu mel nga xam ne mbokki taalibe yi nekk foofu yëpp foofu la ñuy julli see julli farata mbedd moom ci boppam moo xam ne Coumba Ndoffène lañ ko tuddoon léegi dañ ko mujj tuddee avenue Aman Ñaaña Sow euh, bu fekkee ne gaar ba la nag bërëb ba fi sëñ bu julli woon moom bañ fa demee fekk na nawet bi xaw ko jàpp ba ñax yi bëri lool waaye ci suba ga rek buñ ci waxtaanee waa gaar ba bokk taalib yi ne foofu lañ fa def benn set setal euh, bayaat ko ba mu set wecc barab bi gën a war moom fekk nañ fi rek ab barabu nit koo xam ne xamuñ ko Euh, góor yàlla goo xam ne foofu la faatu ñu denc ko fa nga xam ne kenn xamul euh, kenn xamul ku mu doon léegi nag kilifay gaar ba jël nañu dogalu barab boobu sëñ bi julli woon ñu ñu yeesal ko def ko jàkka joo xam ne barab bu siyaar boo xam ne ku ñëw man faa dem siyaare loolu nag dafa tase ak njiitu réew mi ci boppam ak état du Sénégal euh, bëgg a chemin de fer ba mel na melo kon ñuy ñaan suñu borom mottali yéen yi ba chemin de fer nekkaat fa mu nekkoon waaye fépp foo xam ne sëriñ bi julli na fa it ñi nga xam ne ñooy kilifay chemin de fer boole ko ci yeesalaat ko ba mu doon barab bu barkeel ndax xam ngeen mbokk yi chemin euh, de fer saxaar ak sëriñ beeg yoonu murit dañoo am colère gu mag a mag a mag sëriñ bi tukki na ci saxaar ba tàyyi moo xam mu def ko ci coobareem wala ay noon dugal ko ci wax nañu tukki bi nga xam ne sëriñ bi njëkk na koo tukki ci ci ci saxaar te xam ko boobu gànnaar la doon dem lu jiitu lu jiitu yoonu géej gi waaw nga xam ne dafa dem ba dakaar jël fa saxaar dem Ndar wooyu dem gànnaar waaye xam nga ni gannaaw bi ko tubaab yi wooyee Ndar mu leen wuy ji jógee Mbàkke Baari le 10 août 1895 bi mu ñëwee le 12 août 1895 Louga la yendu ca gaar ba julli fa tisbaar julli fa takkusaan jël fa saxaar gi nga xam ne moo ko waroon yóbbu Ndar euh, barab boobu sëñ bi julli woon ci garu Louga mbokki taalibe yi yeesal nañ ko ba mu war moomu lool. waaw bi nga xamee ne sëriñ bi yegg si na Ndar ba ba bañ àtt ko ci biirum Ndar ba war koo yóbbu Gabon ba mu toogee ba le septembre Ndar la gonte dugg saxaar ñëw dakaar war a jël si gaal gi wax nañ ne ci yoon woowu sax la wàccee Thiès daa dafay julli ñaar rakkaam yooyu ca ca gaaru Thiès. loolu le 19 septembre la woon ba tey bi mu demee ci géej ba ñibbisi 11 novembre 1902 bi mu wàccee Dakar def fa ay fan bi muy ñëw ndar saxaar la dugg ndar googu def na fa ay fan war a ñëw Louga saxaar la dugg kon yooyu yëpp sëñ bi saxaar lay dugg bi ñëwee ba juin 1903 nga xam ne euh, tubaab bi war nañ ko yóbbu gànnaar ci ñaareelu exil bi sëñ bi bi mu gontee daaru mën naan le 15 juin le 17 juin ci suba Tiwaawan la ko fekk ca la fa la jëlee saxaar dem dem dem dem Ndar ba tey it bi mu jógee ci euh, tukki gànnaar gi 1907 bi mu ñëwee Ndar ba toog fa aslëf bi mu waree dem Louga nag ca gaaru Lébar googu la jëlee saxaar ñëw ba jur ñëw ba Louga daal di fay wàcc door a jëm ca yéen ak mbokk yi mu àndaloon waaw bi ñu demee ba wax nañ ko léegi muy 4 mars sëriñ bi waroon na wuy ji invitation boobu boobu ko Merlin defaloon Dakar boobu it saxaar la jël dem Dakar ànd ak euh, sëñ Modou Moustapha sëñ Balla Coro sëñ Massamba ak Cheikh Anta Borom Gaawan bi nga xam ne moom la mujjee xam ci sëriñ bi jël saxaar mooy yoonu Ceesam boobu ñu wax léegi le 7 mars bi nga xamee ni bi ñëwee ci la dalee kër sëñ Amath Ñaane Sow kon nga gis ne sëriñ bi dugg na saxaar ba tey moo xam mu coobareem wala boog noonu yi dugal ko ci. ba tey it mën nañu lim ci xalaaxa gi nga xam ne doxoon diggante yoonu murit ak saxaar eh, tabaxu jumaay Touba. xam ngeen ni bi sëñ bi ñu bisee Touba 1927 sëñ Modou Moustapha dafa tàmbale. tabax tabaxal ko jumaay Touba comme ni mu ko ko ni mu ko ko santee woon waaye tubaab ci gàll ci nag bala ñoo tabax jumaa jooju dañuy defar ab raay bu jógee Jurbel ba Touba lu tolloog cinquante kilomètres. defaral ko seen bopp ñoom murid yi nga xam ne murid yi tronçon boobu Diourbel ba Touba di cinquante kilomètres ñoo ko defar seen loxo ak seen alal ba mu ne ba mu sotti diggante 1929 ak 1931 ci ñaari at keroog bañ ko defaree ba mu sotti euh, Touba bu ñuy wax Chardy nekkoon chef chemin de fer newoon cees moo fa jógoon ñëw ci inauguration ba loolu kon day wone euh, diggante saxaar ak yoonu murid bi nga xam ne dem nañ ba 1948 Serigne Fallou woote Magalu Touba saxaar bokkoon na ci jumtukaay yi nga xam ne moo ëpp lu mu doon indi euh, murid yi ci Magalu Touba googu kon murid yi naka jëkk dañoo mës a féetewoog otoraay dañoo mës a féetewoog saxaar ba amal nañ ko sax aw way boo xam ne day wone xalaaxa googu ñi ngi wax ne duñu dugg luy naaw jëm kaw ñemewuñu géej ak ndoxam autorail Touba lay dem baari Saqaye mu mel ne kon xalaaxa bu xalaaxa bu dëgër dox na ci diggante murid ak saxaar tàmbale ko ci sëriñ bi ñëw ci bañuy defar jumaay Touba ca saxaar war faa yóbbu jumtukaay yi ba ci màggal Touba gi nga xam ne suñ Fallou moo ko woote saxaar di fa indi e, mbokki taalibe yi kon nag buñ toogee ba nguurug Sénégal bëgg a yeesal chemin de fer bëgg a yeesal saxaar loolu day am solo lool yàlla na ci sëñ bi def barkeem waaye nag ñu leen di ñaan ci yeesal googu fépp foo xam ne barab la boo xam ne ci gaar ci gaar sëriñ bi julli na fa ñu booleel ko ci yeesal ba mën a yeesalaale barab yooyu gaarub Louga yeesal nañ ko gaarub Thiès moo ci topp ndax kilifa yeeg mbokki taalibe yi nekk Thiès wax nañ ne dañu ko def danañ ci boole nag bépp gaar boo xam ne sëriñ bi julli na fa ci jullikaay bi ñu xam ko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 salaat lazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absar safar